ربي بما يزرعه الأذان قد فجاء بجاه أهل من لله قال جاء ربي بما يزرعه الأذان قد فجاء بجاه لجاء حمدي لرب الكريم من لا شريك له وسالي اليوم نورا ساتها taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu nañ leen ziar leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides euh, ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal ko it mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi ñu ngi fii ci Kaolack ci sorti bi tey lundi dëppoog le 24 janvier 2022 di bis boo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir euh, mu nga xam ne mooy xalif général des Mourides ni nga xam ne noonu la koy defee at jot ci wàccaayu ku màggal poroxaan gi di màggalu soxna jaara gi war a doon jeudi 10 février 2022 ca poroxaan loole nag sëñ bi ci jéego yooyu la nekk ba tax na mu fas yéene dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di poroxaan at mu jot nag bu dem ca poroxaan day jaar fi nga xam ne moom moo di ci dëkkub euh, Kaolack ci biir euh, dëkk bi ci Kaolack euh, ngir amal fi ak ngan goo xamante ni dina fi def ay fan ngir fas yéene saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi waaye it euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, daayira yi maam jaare yi mën koy euh, ziyaare waaye it mu am fi ay fan saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax Kaolack dëkk bu cosaanu la Kaolack dëkk boo xam ne la dëkkub diine la ndax ku kenn fàttewul Serigne Bassirou liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax ki nga xam ne moom moo di doomam ja muy Serigne Moussa moom Serigne Bassirou nga xam ne moom moo fi nekkoon ci pencum Serigne Bassirou liggéey fi liggéey ba am solo ànd koog mboolem njaboot gi tey ji euh, Serigne Cheikh nekk fa moom it ànd ak njaboot gi di ci def liggéey ba am solo kon euh, loole ci wàccaay woow lañ nekk ñu nekk fi nag ci sorti bi nekk fekk euh, Serigne Babacar Mbacké moom Serigne Moussa ñu gën koo xam ci Serigne Babacar mu kabaro ànd ak mboolem taalibe yi ak yeneen kilifa yi ci njiital ki nga xam ne moom moo di El Hadji Seyni Seck nga xam ne moom moo nekkal xalifu général des Mourides fii ci diwaanub Kaolack lépp rek ngir euh, tertu gi ngir waajal euh, ñëwug sëriñ bi fii nii ci Kaolack ngir def ko ñëw goo xamante ni daañu xam ne bu baax a baax a baax Kaolack am nañ gan tey it dëkk la boo xam ne dëkk bu euh, mën gan lañ. kon mbokk yi incha allah fii lañ fas yéenee ànd ak sëriñ bi bu agsee ñu ànd ak moom ak ni nga xam ne noonu lañ koy tertoo ñu fas ne dem ci pincum sëriñ Basiiru ca kër gi nga xam ne sëriñ bi fa la fas ne nekk ci diiru fan yi nga xam ne moom la fas yéene am ci doon kon mbokk yi ñu ak yéen ci convoi bi. bismillah fii niin ak daara yàllaaw bi fiika yàllaaw yaa man lawool amru yaa man laa sariika lawo wasi wa ab li fiika yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله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 أتى المساور قلب للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا رب يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خلقت لي رديئك دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسب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 الفتاء يا الله علمت للقيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أساء وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بزار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 أداء لي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله رضاك يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رضاك العين مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدارين مرتباتي بلا انقطاع بفضل منك يا الله أنت المي ثلاثي لا سبت عيسة خلال ويسا واحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلالي ستي الانس والجن سيطان يا علام أنت سميع لاسي ناجته سمانا وبالمصارات لي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 لخوت فلن أسي من منك يا الله الله لاسي لقط مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أنت سكر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكرت جمي asa ya allah alali yulasi ahlaytani abadan bi xayri makrim walim alal tahya allah alal kabiru lasi baanat kabaaratu lii xutta fal lii xutta min ka kabbi alal ajri yàllaaw antal kabiru la si baanat ka baaratu li xutta min ka kabbi alal ajri yàllaaw antal asiisu la si wajaata fi abadin ilaa siwaayal idaa والضر يا الله أنت المقيت الذي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلا الجنات يا الله أنت الأسيب الذي قد اكتفيت lépp nañ ko tënk xam ne lépp lépp tawfeex sëriñ Basiru ju am ci sëriñ bi ak xaas jëm ci boole moom moom moom rek lii de lii mooy moo ko feeñal maanaam mooy mandarga bi ñu ko mën a xamee noonu rek lii mooy mandarga mi ñu mën a xamee eh, dëgg dëgg tawfiix ji sëñ Basiru am ji sëñ bi ak xaas ji mu ci am loolu rek la <laughs> waaw nu xaaj loolu nag tawfiix ji ak xaas ji nag ñun ñëpp noo ngi ci biir waaw <laughs> noonu rek la demee noonu rek la demee sant nañu bu baax a baax sant gi sant gi moom amul amul fenn fu mu yem lu dul ca ca ca kanam borom la bi yëpp يا الله أنت الحكيم الذي أبلغتني لسوى عزائي وما أو تسوء يا الله